Ousmane warul sa genre bi. genre si lan lan moo nekk si man. góor rek la de su ma ko ubbilee mu dóor. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ne ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ma koy faral defee chaque fois. gis naa message yi et je crois que ni yónnee nañ ko ku nekk képp koo xam ni chroniqueur nga yónnee nga ku si nekk te man affaire dafa metti quoi y' a beaucoup de yoo xam ni ñu ngi nen Sénégal la ñuy xeexal mais dañuy tëj seen gémmiñ si acte yoo xam ni moom moo indi con confusion yi am yëpp biir Sénégal mooy ni ñu bon yi ni ñuy jaay doole nit ñuy nangu suuf yeeg affaire yi ñuy wax si gouvernement bi yu bon yi mooy yu ndaw yi nii ñoo indi loolu noonu ma ne la boo sàccee tey nen suba nga sàcc nag yu ndaw yi ñuy banaliser moom moo tax ba dëkk bi di yàqu ba ku nekk def lu ko neex dama leen di jox li nga xam ne moom moo xew si Evenprod pour vous donner des preuves yoo xam ni Evenprod lobby yi LGBTQIA léegi noonu la tudd sax ñoom ñoo leen financé mais balaa ma si dugg dama leen di wax nan la LGBT amee doole parce que y a beaucoup de sénégalais yoo xam xamuñu ko ñenn ñi xam na mais ñëpp xamuñu ko nan la ñu amee doole mooy ñun hétéro yi ñun ñoo leen may doole boobu noonu. mooy maanaam tey jii nii boo génnee nga saaga benn góor jigéen góor jigéen bi yóbbu la justice yow da nga lay fay da nga koy fay amande mooy maanaam da nga koy fay ndànk-ndànk góor jigéen yi di am doole ndànk-ndànk ngeen leen di fay parce que saa yu ñu génnee ñu am benn discrimination ci monde bi te gars yi comprendre ñu loolu noonu bañ demee nag ba am li nga xam ne moo di doole ñu commencé di con ñu dugal li nga xam ne moo di nit ñi even pro si nit ñooñu la bokk mooy maanaam sénégalais yi bu njëkk ba dañu naan nguur mooy maanaam buur ba ci Massamba Cuun Anta bi ngeen dégg gàccam nga des na bul yaama mbokku sénégalais moo ko lor moo dem wax tubaab bi kii lan mooy forsam mooy maanaam li mu yor noonu bant yatu xaalis boobu noonu moom mooy moom mooy forsam boo ko jëlee si moom mu perte li nga xam ne moo di guerre bi c'est la même chose moderniser nit ñi ñuul ñi ñooy dem si tubaab yi nit ñi ñuul ñi ñooy dem si tubaab bi ñu leen di jox pour ñuy ñëw di lor suñu dëkk ñooñu mooy ñoom waa Ivan Prod tey jii nii Ibou Guèye mi nga xam ne moo bind série bi Ibou Guèye mi nga xam ne moo produit film bi du toog ak doomam wala yaayam wala sëram wala tantaam naan day seetaan série bi du toog ak moom mais ñoom dañuy jël seen doom ne la dem leen ngeen tëdd ñu ne xaaral ñu jox doomu jàmbur yi ñuy def seeni doom du ñu seetaan série man maa la ko wax du ñoom du maas dur du kenn képp koo xam ne yaa ngi biir Sénégal di jouer film di yàqu xale yi du ñu nangu seen doom toog di ko seetaan góor jigéen yi noonu la ñu amee doole ba léegi dañuy promouvoir dañuy fay nit ñi di dooleel ni nga xam ne moo di nit ñi mais pour nga dooleel nit ñooñu noonu il faut que ñu rokki mu rokkaan la il faut ñu jox la benn affaire lan la leen di jox mooy maanaam de messages yoo xam ni soit mu nekk des messages yu bon soit mu nekk des images yu bon léegi def nañ li nga xam ne moo di premier pas bi wax sénégalais yi nii war nga am liberté def lu la neex war nga am liberté tëdd ku la neex war nga am liberté dund sa dund kenn du la war a wax dara non on juge pas on critique juge ak critique ñaari bon yu bokkul la xool leen série bii nii épisode épisode 1 bi da ngay gis carrément ne ndaw si moom mu ngi yor li nga xam ni moom moo di taxawaayu nit ku yiw mooy parti bu ndaw bi nga xam ni série bi yëpp benn parti la ñu wane ñaan nit ñu baax ñoo si nekk gis def yëpp nit ñu bot lañ série bi yëpp te tey ñii nii boo jëloon li nga xam ne moo di benn série nga def 90 pour cent lu baax lu ndaw li nekk lu loo xam ne loolu mën nañ ne day yeete parce que kooku mujjanteem foo lay nekk mais nga jël série boo xam ne 90 pour cent lu maanaam 98 pour cent lu bon la nga indil ñu benn deux pour cent mooy bileeg rax ji dund wi ñuy dund te kenn xamul bili fan lay mujjee lan lañ bëgg a wax foofu xamuñu ndax bili dina mujjee continuer si mu nekk nii wala du si continuer ñu wane xale bu jigéen bi toog ak ay xaritam. xale bu jigéen bi premier cas mooy maanaam nit ku ñuul mooy maanaam léegi léegi rusatuñu sax ni wax ni dañuy xeesal nga gis nit ki ne ko ah yow da ngaa yow yaa ngi rafet yaa ngi am teint bu nice yaa ngi ñuul kuku man ne suma sañoon dellu ginnaaw xam nga ndax tendance la kon ça veut léegi nekk nit ku ñuul lu lu naturel de tendance la ñuulaay moo xew mode la ñëpp dañuy bëgg a nekk nit ku ñuul kon tey ëllëg si biir gars yi bu ñu créé woon teint bu vert ñëppay dem nekk teint bu vert parce que tendance la moom moo xew deuxième chose xale bu jigéen bi li mu yor si livre kaye bi muy jàngee mu ne étude la kii naankaan bàyyil jàng bi jàng bi baaxul du la bu fenn da nga ñëw def ni ñun kaye bu mu yor xam ngeen ni drapeau LGBT la mais est-ce que sénégalais yi bëri seetaan seetaan seetlu nañ ko doo leen ko seetlu xam nga dama doo leen ko seetlu parce que bu comprenez pas lan moo nekk di xew drapeau boobu ngeen di gis tey wan nañ la ko fii suba ñu won la ko fee gannaaw suba ñu won la ko fee ku si nekk na jël sa li nga xam ni moo di nga bës clavier bi nga dem si nga xam ne moom moo di fi ngay xoolee drapeau Sénégal drapeau États-Unis drapeau lu ne nga xool LGBT mooy premier drapeau après drapeau bu weex après lu weex li LGBT mooy premier drapeau moo gën a important drapo dëkk yëpp parce que dëkk bu nekk la laal tey ji nii boo nee noir discrimination noire n'est pas calculée noir tey bu ñu la nee woon sale noir de merde boo demee tribunal kenn du la fay xaalis boo ñëwee nga ne sale sale gay de merde boo demee li nga xam ne moom moo di tribunal da xaalis te loolu moo nar am Sénégal chaque jour ñu wax leen ko léegi gars yi ne ne ñoom duñu wax dañ lay dañ influencé de benn site la benn benn benn tiktokeuse Italie moo taxaw ne ah temps yi dama am benn benn compagnie bu bees si xaaral ma dem contaminé ko mu dugg si LGBT léegi nekkatul li nga xam ne moo di influence de léegi xam nga lan la dañ lay contaminer kon ça veut dire que ni noir mooy lu bon li LGBT mooy lu baax li te pourtant ça doit être le contraire noir juddu woowu da juddu ñaanoo yàlla nekk ni ku ñuul da nga juddu fekk nga nekk ni ku ñuul nga accepté ko góor jigéen am nga choix bañ a nekk góor jigéen li ñu bëgg teg si bopp nit ñi mooy tey jii ku si nekk war nga am liberté sexuelle nu la neexee fu la neexee ak noo neexee nga def ko foofu noonu wala tey jii mën nga ni ku nekk si ñun am na tuuti góor wala am na tuuti lesbienne il suffit que nga nga développé ko rek di nga gis lii moo nekk li nga xam moom laa leen bëgg léegi nag man maa ngi lancé appel sénégalais yi nga xam ni wax dëgg fa yàlla gëm nañ ni dañu bëgg a changer dëkk bi. première chose mille personnes bu ñu signalé vidéo boobu noonu si 1 million de laa wax de 1000 personnes bu ñu signalé YouTube dina tëj vidéo boobu noonu te ku si nekk joxe sa raison. Senra ak li nga xam ni moom moo di Jamra ba Marème ne wax dëgg fa yàlla sama lii maa ko moom ubbi naa ko. yóbbu ngeen ko tribunal dem nañ ñu entendre leen tere nañ leen woon diffuser yenn wax yooyu noonu tere nañ leen génnee vulgarité si seeni vidéo bi pas gisuma kenn yëngatu si du Senra du Jamra du kenn koo xam ne da nga ne da ngay waxal teewal Sénégal ah. du kenn dagaa gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo Loor Wes la woon a yéen wasalaam